waaw maa ngi lay nuyu DJ Mo maa lay nuyu bu baax di nuyu Idali di nuyu Ahmed borom wan sob fii nga ma fekk ko fii mooy One Shop nekk si Thiaroye asir di jaay lu kenn jaayut wax dëgg yàlla ku fi ubbi bitik fii Thiaroye Azur ba mu daj fii nga ko royee parce que bitik bii moo fi njëkk boobu ñu bëri dëkkaguñ fi xam nga di jaay lépp yéwénal gaay boo bëggee location yooyu yëpp boo ñëwee fii One Shop contacté Ahmed mu defal lako fi sama bitik la nak saw katu lal fu la seen nalal ba lor waaw bo pare rek nga daal jall commercial wa non non yeen xana yeen tamit da ngeen di jall ci <laughs> ya ngi deg waaw waaw di la nuyu yow tamit di nuyu sama grand Abdou Aziz Sila sama mag Awa euh, bu ak Amin Njaay bu groom topp ka ma ngay nuyu bu baax soxna May Jaxate mhmm. suma jigen quoi di nuyu ñom May borom montar bi nuyu na ñep di nuyu Sénégalais yeb wax dëgg yalla alors Djimbory ah. euh, yi dañuy ñëw ak yow directement ci actualité hein ah, parce que dañ la gis nga def benn sortie ci émission boobu ngay def gis nañ nga defoon fi sortie di euh, wax ci problème jëf jël ak malik Nar mm. nga daal di jëloon position nag mais dafa dem ba ci biir ñu gis ni da nga commencé rocceeku ci li nga jëloon non man duma rocceeku way mm. xam nga léeg euh, jamono yàlla sax moo njëkk wax ni sama nitu tey gàcceel na sama nitu démb démb ak tey du benn man moom dama lay wax benn affaire kenn du ma jënd kenn du ma fay may wax hmm. mais booy wax dara da ngay dem di gëstu di wax mais boo jëlee position taxaw ci dëgër ci rek hmm. da ngay waaru dama ni su ma amoon numéro jëf jël am numéro Malick dinaa ci dox tànk julit bi ma waxee loolu ma wër-wër numéro jëf jël aw ko yaa ngi dégg hmm. fekk man am na source yu ma téye léegi si laa def sorti moom tamit benn sam benn jigéen na ko jox naa sa numéro Jimbori fekk du dëgg mais bi ma woowee expliqué ma ma ne ko diw mu ne waa ma ne ko ndax mun naa laa ñaan nga arrêté ma jéem a xool camp bi camp bi nga seqal dox ci tànku jaam mu ne ma may naa la may naa la jooju tamit dafa ma may ba ma xam ne may na ma. moom waaw léegi moom ki mu jiiñ ni ni daf ko yoreel. Mhm. mais kooku lu gën a simple mooy lan mooy nga génn ni yoreel naa ko wala yoreelu ma ko yombul. Mhm. mais waxoo dara yaa ngi dégg man tamit woo naa woo naa Malick jotuma ko audio naa tamit tontuwuma yaa ngi dégg mhm. kon duma ci gën a xuus mhm. du ma tooñ jàmbur mais lan moo taxoon nga dugg ci te mu nekk coow loo xam ne peut-être ko kan maîtriser wu ko man mhm. noo man dama lay wax benn affaire xam nga jëf-jël ñëw na wax ma yaa ngi dégg waaw benn lay nag paak la du dëgg léegi beneen camp bi tey jii li ma jëf wax su ma jotoon beneen camp bi léegi damay génn waxaat lu lu leer mais wax yi yëpp nag ci waxu luy defar mais pas luy yàq ak luy féewale ay jullit duma ko def mii mm-hmm. mii comme ñëw na expliqué ma ñu waxtaan ma nag moom ndax damay gën a màtt fi ma téye woon loolu du defar coow. mais balaa ngay téye fi nga téye woon est-ce que lii rek nekkul loo xam ne moom moo waroon njëkk. mais numéro am fan laa koy jëlee mais tey jii mënoo jël position ci loo xam ni peut-être xamoo ko nga bàyyi ba ab ci say investigation yu leer non déggoo ma xam nga tey jëf jël ñëw na mhm. sama waay la Malick sama goro la mais man ku ma xam-xam ni yaa ngi dégg du ma wax lu ma leerul lu dëgg mais boo téyee ay source xam nga ji yow mun nga toog fii mhm. am ku nekk fañ nekk jox la source nga téye mais li nga téye boo si amee ñaar ñett yaa ngi dégg boroom affaire bi ñoo ñooñu duñu boroom affaire bi borom affaire bi bu ñëwee ne lii la in faut nga xool lim la wax moom tamit bu dee loolu moo gën a wér liñ la njëkkoon jox da ngay téye ci lool kon da nga vérifier nga xam man damay vérifier li ma la wax dëgg la Amérique crédit la ñuy dundee. Mhm. boo duggee biir Amérique dafa am benn numéro bu ñu lay jox numéro boobu moo lay identifier numéro boobu di la identifier chaque weer américain yi ñoom ñoo lay gouverne nguuru Amérique moo lay proposer bu dee am nga kayit ne boo bëggee ma lebal la xaalis. am na ci ñoo xam ne dañuy dem Amérique ñu lebal leen xaalis boobu ñu ñëw fii di baatare loolu leer na. ah dañ leen di lebal xaalis foofu. non dama ne boo amee. boo waxee loolu xel yëpp dafay dem ci Malick. non déggoo Malick li nga xam ne man nag xam man ni ngay bëgg a émission nii. non dañuy waxtaan parce que dañoo ma xam xamaluma ko dara. Hmm. Malick xamuma xawuma ko. man nee naa la Amina Poté laa xam. yaa ngi dégg te naa Poté bi ma xam yaa ngi dégg musuma teg bët musuma ko teg bët dama ko gis mu nekk jàmbaar nekk ci dëkk bi nekk jàmbaar nekk femme bu baax tamit apporter dëkk bi lu bëri ma ma defe ne suñu toogee nag ñu mel ni Amina Poté ñu seetaan leen ba ñu faagaagal leen mais fan la ñuy jëlee ñu baax. kon Amina moo taxoon ngay défendre. déedéet dama ni Amina Poté du Amina Poté du moom mooy coow li. Mhm. tey jii coow li Amina Poté moo tax mu am benn benn coow. waaw ak tuuti jëf-jël mi nga xam ne doon na fi bëre du dëgg mais bu fekkee Malick la Malick du artiste du du animatrice du lenn du mbër mhm. du dëgg jëf-jël xamoon nañ ko muy fi fii mhm. naa Poté xam nañ ko animateur la jëf jëlit biñ ko gisee si làmb ji musuñu ko gis mu def fi nonsense naa Poté dama ne bu fekkente ni euh, naka bu nga maan dem na bay tukki di ci tabax kër di ci am dara tey grâce à Amina Poté mhm. léegi loolu mu lebal Sénégal laa koy delloo su ma mhm. gisee nit bu ko teg naka su dul noonu ma vérifié ba xam ne du dëgg ma génn ne la li nga koy waxal du dëgg. kon yow xamoo personnellement Malick Naar. non Malick xawuma ko. kon la moo tax nga génnoon di wax que ni moom moo hébergé woon euh, kii di jëf-jël. kan Malick booy xam nga dama ne la wax yooyu passé naa ko. non mais en fait ba tey ci cas boobu lañ nekk waaw mais waaw déglu ma wax la dama ne wax boobu. Mhm. passé naa ko parce que toog nga dégg jëf-jël ne la Malick sama xarit la. malik tamit ni jëf jël xaritam la idali mi suma xarit la suma neela idali sama xarit la lu wër la mhm. pas réseaux sociaux de idali sama xarit la xamna ma xamna ko bu baax tay ji amna lu mom muna lu muna wax ci man amna lu ma mën wax ci mom mhm. mais secret bir nek kuko indi ci penc yaay kat bi mhm. amna fo xamne so fa tolo di arranger problème da ngay yore jukko douce xam nga jukko duus fay waaf te du bolé kenn ñi nacc lek ñi le da danaan pat mais une fois mané pat su fekke dama bëgg défar defar mhm. mais légui légui wax naa la né ben camp bi waxtaan naa ak benen camp bi woo naa ko jëlul ma la wax lool man duma neppatu sama dëgg de ma li jëlul jëlul tontuwul dégg goma mhm. man li jëndina naa numéro ba am ko li dama la kay wax mhm. parce que ku bëgg défar defar parce que man lima défar defar ci ciow ci suuf mo upp ci kaw dama né ba ma expliquer la dal amna na ko Aji ni jubari euh, baal ma tuuti rek ma ah. man sax ma kii mais damay tëb moom tuuti rek euh, parce que man dëgg rek ma yàq pourquoi en fait nga ñëw défendre Malick Nar toog ne défendre Malick Nar nii ba pare nga ne Malick Nar di jëf jël demee Malick Nar moo ko luyee je crois que wala benn jabaram moo ko luyee ci nga xam ne mooy suñu dëkk ak jox ko oto ba dem ba ci biir ba nga xam ne nga ne 500000 la ko yoreel te jotoo Malick dégg maanaam déggoo kenn ku jege maanaam wax loolu information lan moo tax génn information bi. xam nga man non sama source du ma ko wax. mais yaa ngi dégg non xaara. waaw xaara xaara xaara non fi ma nekkoon man fi ma nekkoon. ba tey gisoo ma ma ma waxoon gisoo ma changé ko de. jëf jël non xam nga jëf jël daf ma jëf jël dama dégganteeg moom ma gis ci loxo jëf jël loo xam ne yaa ngi dégg vraiment ku mu nekk ci yow bu nekkoon ci man ma yëngu ma arrêté du dëgg waaw. kon kon kon jàpp nga euh, jëf jël parce que tamit tooñ na ma parce bi ñu waxtaanee man ak moom non xaara xaara xaara idali. idali xaara idali xaara ma idali. ka ma ah, idali idali idali idali loo xam ne. idali idali waa waa doo ma déglu. Hmm. xam man am na ñoo xam ne dañ may wax man. mais bu ñu est-ce que doo vérifier. non waa xaara xaara man fi may jëlé dañ may wax mais en fond ci biir yaa ngi dégg su fekkante ni jëf jël ñëw na ñu waxtaan man ak mom té man ma bëgg défar defar seen diggante ndax damay continuer ci li ma doon wax. mais liñ lay wax est-ce que dina nekk lo xam manam da fay lèr non xam nga fuñ mu toll pour ma taxawaat ci fi ma taxawoon ba tey mhm. il faut ma jot beneen camp bi waat mais ñoom fi ñu nekk am na ñu fa nekk. am na wala amut. Mhm. ba pare man damay recevoir ay ay appel su ma waxee gis nga tey am na bu ma leen jox ne leen crédit nangam nangam am na ñu jege tribunal bi foofu ñoo may jox ne ma lii la lii la lii la. mais est-ce que ñooñu ñooñu dañ may wax ni ñuy amee xaalis. niñ leen koy lebalee. xam nga man dama jàpp niñ koy fayee. Mm-hmm. yaa ngi dégg foofu Amérique. Mm-hmm. li ma la wax nii dafa leer xam nga am loo Amérique. sa numéro boobu di la identifier mhm. soo fexee ba nit jot ko nit ki mun naa jël numéro boobu dugal ko si banque lépp si sa tur hmm. mais même moo jëmbori moo wax benn am na wala amul mais waa xaaral i daal yi wax waaw waaw wax toog plateau devant tout euh, yëpp toog ah. wax ne li may wax nag ne Malick Naar mooy euh, héberté jël moo ko moo ko defal ci këram ba cinq cent la ko yoreel mais nag du samay wax maa ngi ko jël suuf ci nangam bu boobaa ñu xam ne jimboori mais waxuloo da nga ne rek moo éberté woon jëf jël moo ko joxoon oto jabaram américaine nangam nangam parce que yorelu ko li ko yoreel cinq cent mille la ko yoreel ah. waxoon ne suuf bi felaa ko dama dégg ne ne nangam da nga dafa mel ne da nga am preuve bu équilibre xam nga man ma wax la benn affaire loolu du ñum te jum idali man wala da nga jàppoon ne en fait boo déggante maay naar di nga ŋànk wala la ci loolu ñoom ñi muy Adamo muy Serigne Bala dañuy gis ni wax naan dañu wala soo tuddee ñooñu damay arrêté émission lan moo tax am sama nawle waaw xaar a bokk da ngeen di xaar mhm. xam nga tey Adama day nekk ko xam ne day saaga ay ndey waaw xaaral may ma may day saaga ay ndey di xaawi sutura man saaga ndey ak xaawi sutura mais coow lu jumboor wax Adama da wax waaw man li jëntiwu ma mais dama lay wax benn affaire man dama ne la bëri na histoire yu am fii am na artiste bu mag mhm. boo xam ne sëyam préparé woon nañ bañ koy waaj a tas maa ko woo ko defal nii coow li arrêté ci suuf. amul lenn loo ci séntu. ah amul lenn loo ci séntu. barki Seexuna Axmadal Tiijaan Maxtoom ak Baay Ñas bi ma gëm. ah yàlla naa rikki ma si yoonu Seexu Tiijaan yi man du kenn du fay may wax. non mais dañu la fay ngay wax mais dañ lay neexal. ñun dañuy waxtaan quoi. kenn déggoo ma xoole déggoo ma non da nga may da may déglu da nga may déglu. xoole waaw da nga may déglu da nga may déglu ma waaw. Eh, Idal da nga may déglu. billahi déglu ma billahi wallahi wa kenn du ma neexal man. Hmm. mosoo jël xaalisu kenn. kenn. non loolu xanaa bu ku ma may man boo ma mayee damay jël waaw xaara ma ne du Malick du xoola du Malick du jëf jël laa wax ak keneen ku mu mun doon moo dama lay wax xoola xoola waaw dama lay wax ni dama lay wax ni waa danga may si dëkk bi nga nekk xoola man ma wax la benn affaire waaw dañuy waxtaan xoola ku dul Wally waa waaw da ngay déglu moo daal waa danga ma déglu danga ma déglu noo man dama lay wax dama lay wax carrément parce que bima weddi kudul wali sek la wax de yaa deg fukki dërëm do mako jox wali sek ak jaaga mhm. fukki dërëm man ken duma fay may wax kuma ma mës fay na genn ni fay naa am ñu ñu jox 500000 ñu genn di fen ah bon ñu si mel am ñu ñu jox 100000 ñu genn di fen mais ni nga ñu xamé ñoom ne do man dara non Idali xaar la Idali lu ma la wax tamit jàpp ci. doo bàyyi sama tur bi ka non ka wax. caméra laay waxee dama ni. Mhm. ku sa fay Jimbori muy wax génnal. Mhm. xanaa lu ma la wax leer man kenn du ma fay. soxlawu fukki dërëm ci nit di jënd sama gémmañ jamais. Mhm. lu tax man ma am. voilà. non waa bi ngay dé yow bi ngay dégg yow bi ngay dégg may wax ba léegi bi nga dee dégg may wax ba léegi non waaw waa non man du ma jël xaalisu kenn kenn defaluma dërëm fukki dërëm ñi ñuy fay kay ñuy ñuy wax gis nga leen ñi ngeeg ta ñi ngeeg ay taraanga man boo ma xoolee. am na ñu ci ñu ci fay ñuy wax. no dama ne ah, man duma wax mais dama ni am na ñu ci jox cinq cent mille parce que keroog bi may wax waxu jëf jël nee naa leen moytu leen ñi nga xam ni dañ leen di fay ñuy wax wax naa ko. Mhm. wala dégluwuloo ko. Mhm, bi may wax affaire jëf jël waxaale na ci am na ñoo xam ne encaissé nañ ci xaalis moo tax ñu nekk fi di influencer askan bi. Mhm. man du demee noonu man damay gëstu samay source su ma ko amee ma jàngat ñëw wax man boo ma bëggee fay sax man xaw ma kenn ba may fay. kenn fukki dërëm kenn duma ko jox. léegi pour ñu tëj pitre boobu tey jii Malick Naar ak Jëf Jël coow li bëri na lool mais ba tey kenn xamul fan la dëgg gi féetee. waaw say sources yooyu noonu ñoom ñaar kan moo ci tooñ boroomam. non xam nga man lu ma àtte te dégguluma keneen parce que police sax kuñ tooñ ak ku tooñ lañ fa indi il faut ñu gis ñaari camp mais man am na source yu ma téye mhm. su ma waxtaanoo beneen camp bi damay génn. mais li nga jot a déglu Jëf Jël peut-être am dëgg. non xam nga Jëf Jël nekkul di wax de. Mhm. dafa am ay preuve yu mu teg ma déglu ko. Mhm. moom nekkul di wax de moom dafa am ay preuve yu mu teg ma déglu ko sama nopp loolu nag munu ma ko dégg sama nopp di continuer mais bu ma waxoon waxi kese fi ma dëgg laay dëgg parce que tamit ñi nga xam ne dañ may jox man yàgg nañ maa jox te liñ may jox day leer nañ parce que kii dalay wax lii kii wax la lii kii wax la lii kii wax la lii man noonu laay gëstoo damay dem gëstu ji ba xam dooga dellusi si toppkaa bu ñëwee moo tax man duma wax si vie privée si def def lay wax. si hmm, def def si def def lay wax. Hmm. Amina côté dal ma wax la musuma ko gis musuma gis sama jigen la may càmmañam. Hmm. lima duggal dugal si moy leg leg dama daan gis nit. dama mësa tok gis fu ñuy préparer pour dem yàqu ko. ma génn défendre ko mom Amina. waaw waaw mom tamit nekul ko xamni dang kay défendre dalay wax sax man bugguma ku ma défendre man tamit duma défendre kenn. pour sama lenn sama kër gale maa ko yoral sama bopp boo ma joxee tey cent mille tey est ce weer bële di ñëw di ma ko jox. waxal man léegi kon ma jaay sama bopp ci yow ci lan fukki dërëm. kon daal kenn jëndu la. kenn du ma jënd. alors mën nañ tëj chapitre bi ma jënd. maanaam comme xaalis parce ban. ay Aida Saliou ba léegi non déggoo ma Aida Saliou bu Seex Béthio ba léegi yaa ngi dégg voilà non mais comme yow rek comme yow rek comme yow rek non comme yow rek déggoo ma lu ma la wax voilà ma wax la benn affaire gis nga ni ngay gis nii soxna Aida yaa ngi dégg sama sëriñ la lépp la jàppante wuñu soxna Aida boo demee doo ko jàpp ngir xaalis moom sax maa ngi doog a xam ne kon ñoom dañ fa jëlee xaalis wax deug yalla hmm. comprendre nga li wax waaw waaw man dama ko dama ko japp ngir Cheikh beto xam est-ce xamna Cheikh beto fu mu ma sat tu naa fa sama ben xarit bu wax mam Cheikh motax ma min Cheikh beto Jakarta la yoron cantaa la ngi italy fu mu sat de fu Cheikh beto dem dana ma nañ fa and bu mu ne ko oh, xam mu ne ma nañ dem sila dem nak dem ba min Cheikh bi min ko bëgg ko nak ci sama xol bi mais talibé bay la mu léegi nag ma maîtriser cheikh bi. loolu moo ñu boole mais man. taalibe bàyyi nga loolu sax duñu duñu si taxaw alors. Mm. alors nañu duggoo ci actualité réew mi parce que porteur de voix nga du ñàkk tey jii politique bi ñu daal di reporter élection yi daggati nañ connexion yi sax tey ba ñu xëyee ci suba si report élection yi ak manifestation yi nga xam ni ni muy déroulé Jimbori lan moo ci point de vue am. lan mooy. moo ci sa point de vue yow lan moo ci sa xalaat. lan moo ci sama xalaat. Mm-hmm. mais sama xalaat lenn la rek. Mm-hmm. parce que tey. président bi su bàyyi woon constitution bi fañ ko teg. Mhm. lii du am. Mhm. kon d'accord ak pousse bi bu ñu pousse yi ak. constitution bi xoola waru ko pousse virgule. dialogue bi ñuy def nii tamit d'accord ma ci. dialogue noonu tax parce que kiy woote. Mhm. ak ki ñi muy woo. daje woon nañ suñu kanam ñun. waaw mais ñaata daje lay doon ba pare daje boobu ñu daje ñoom. dañoo waroon a daje wàcc ay kaamil pour ñi dee. mais waruñu daje ñoom di wax benn wax. xam nga tey balaa ne na ñëpp daje ma libéré euh, euh, kii euh, prisonnier politique yi mm-hmm. mais booy libéré prisonnier politique yi mm-hmm. décès politique yi léegi moom noo leen di def xam nga prisonnier mi ngi dund mm-hmm. mais décès yi ñooñu dee nañ ñu dugg ci biir suuf léegi lan moo leen di kii ba pare xoola sooy lijjanti dialogue pour ñu arrangé wu est-ce que booy nga dem lijjanti ñi dee kan moo leen rey gën gaaw li la won ne élection yi buñ ko defee du jur jàmm est-ce que warula xam-xam bobu boko amé amee ci duggal xam-xam bu lay won diw mii moo rey ñu génne len même ñii bu ñu demoon élection dañuy am problème xam lu tax mhm. parce que dafa am ñu nekk ci dëkk bi ñu rayal len ba légui seen bop lérul ci kan mo len rayal bo défé campagne bi est ce que ñooñu du ñu génn am ben rankine parce que kenn ku ci nekk amna ko fogg ni mo la def c'est important li jënti lolu mo gën fouf nga ku nek nga ne ko diw ki kan mo la rayal diw ki mo la rayal lol day indi dal ba pare askan bi di génn di di di di di mars ak di def yef genn bi lañ bokkule mais bokkuñu lu ñuy xalaat ah. mais buñu bokkon ben xalaat genn bi ben joow lay doon ñi dañuy genn ku ci nek ak la ngay défendre waaw ñi dañuy genn pour li ñu ajandi élection yi mhm. ñi di genn pour jël alali jambour yi mhm. ñi di genn pour xañante ñi di genn pour lu ne mais bu doon génn rek pour li ñu ajandi élection yi benn joow lay doon ba pare gendarme yi nga xam ne dañuy taxaw ci tali bi gendarme yi taxaw ci tali bi mhm. policiers yi taxaw ci tali bi mhm. askan bii génn léegi booy su ma la doon laaj askan bi kan mooy askan askan bi mooy ñun ñëpp yow ci askan bi nga bokk man ku ci nekk daa war jàppee boppam mais askan bi dañoo am problème mhm. léegi ñoom est-ce que amuñu droit taxaw xool kan moo leen jaxas xoola gendarmerie ci askan bi la Mm-hmm. police ci askan bi la militaire ci askan bi la ñun ci askan bi lañ mm-hmm. kan moo ñu jaxase xoola tey boo mënee dem yow jënd lu seer bu ko yóbbu sa kër mm-hmm. kan moo la garanti ba nga jënd ko gendarmerie police léegi ñooñu boo wëlbatikoo mën a yanu xeer bëgg leen koo dóor ñoom tamit li ñu yor ñu koy wacc sa kaw mais kan moo ñu jaxase kan moo ñu jaxase lu tuuti ci askan bi moo ñu jaxase mooy ñu nga xam ne seen seen propre moo tax ñoom ñu ñu génn di ñu jaxase ñun mooy les politiciens. oui politiciens yi war a opposition. leen a le. mais gouvernement wala opposition. dégg waaye dama ne mburu pot ko nga gouvernement opposition. Hmm. ñoom ñooñu bu dialogue dañoo deele kan moo ci hein? ñun ñun ñoo hmm. te réew soo ci nekkee feeg demoo ba ku mu ne sa doom moo dee boobu réew des da ngeen war a waxtaanaat. Hmm. ba pare dama ne réew ni gis ni na fi ñuy dox budul woon yor comme nit xoola nga ubbi kaaf dugal leen ci tëj tëj day jaadu du ñuy nit du ñuy nit xoola ma nelaw sama kër ma yore benn problème yëngal ko ba nit dee dee ci est balaa may nelaw man damay compter sama njaboot ba ma sëkk ma tëdd ak jàmm mais ki nga xam ni njabootam guddewuñu mu naan dina ñëw njabootam dafa dañoo dañoo dee ñu rob leen mm-hmm. kooku waroo xalaat waroo xalaat ni dafa deele nga xalaat loolu bu fekkente ne yow yaa yëngal coow nga bàyyi coow li munu nekk mhm. bu dee yow yaa yor coow li nga gis ni kii kat ñàkk na doomam te man maa ngi ak sama doom nga bàyyi coow li est-ce jaadu mhm. ba pare ma wax la dara polis est xam nga lu tax gendarmerie police dañuy yendoot fanaanee taxaw ci tali bi ba fajar police taxaw fa yow tamit ngay taxaw lan moo leen fa taxaw loolu su leen leeroon ni yow da ngay marché kese duñ fa taxaw ñoom tamit xoola bu leen leeree ni yow doo leen gaañ yow tamit duñ jëm sa kaw amna wala amul mais xam gi ñu wax gi nga leen wax ni da ngay yàq wan euh, sob moo tax ñu ne la doo fi yàqee wan sob te wan sob soo ko yàqee ki ci ci kàlla bokk si civil yi gendarme tamit bu yëkkatee fetal di ko dóor nit ki muy dóor noonu kooku am na magu gendarme wala mu am rakki gendarme wala mu am papay gendarme mbaa mu am nijaay gendarme gendarme tamit boo yanoo birig fëgg ko gendarme bi yow war ngaa xam am nga papay gendarme wala am nga magi gendarme wala am nga mbokum gendarme legi ñun ñi suñu suñu biir kan moy ñew jubo lañu ngir yalla ba paré yeen problème bi ngeen am dafa ngand est ce xam nga problème sénégal pour man mhm. du gawa régler saa yu nek so len amé problème new yi ngeen wo pour mu régler sen problème mm, new yi maam abdou ngeen tek kasetam fi di lamine ñass mil ni yeen yoru len gémmañ d' ci lolu kon way dooma baal nga na maam benn bañ da ngeen yoru yorul yeen amé suñu kilifa diiné la ñu am way kilifa gu fi joggé yeen ay kassatam ngeen tek ay señ faalé wu affaire yoy lu tax nga bañ loolu xam ne kenn du leen pelen ragal nga bu problème amé ñu tek maam abdu mhm. tek sii di lamin ñas teg sëñ abdul laxat waxi sëñ abdul laxat yëpp fàttali fàttali ngeen ko nit ñi ba ñuy bëgg a yi kan no wax boo koy wax waxu sëñ Abdou Lahad boo génnee wax ko mhm. appliqué ko parce que sëñ Abdou Lahad da ko waxoon pour nit ñi appliqué ko sëñ Abdou am na benn jikko bu ma neex si moom yàlla na yàlla lokk leeram mhm. mu na ñaan nit nga bañ day ñëw si jumaa ji ne diw ñaan naa ko mu bañ ñëpp di dégg mhm. loolu la daan def moom noonu la de da ciy simmee ko bu gaaw wax nit ñi ne diw li ngeen ko yaakaar nit dafa mos a ñëw ne ko gerte gi kat dañ koy jaay téeméer mais président bi nekk Gambie da koy jaayee juróom naka mu ko ko wax rek sëñ Abdoulaye ni sofoor bi taalal dem pale ji Senghor ne ko dégg naa ni Gàmbi ka fa nekk gerte gi da koy jaay juróom fukk yow ñu koy jaayee téeméer te surtout lam njàng la mu man war nga koo man wëlbatiku waat lan moo tax mu xam ne charge bi dafa dal ci kawam bi mu duggee ci noppam kon da jàpp ni tey jii ni kilifa diine yi nga xam ne peut-être ñi ngi leen di ŋàññi jamono bii di wax ni li ñu war wax waxuñu ko yow da ngay dëggal wax déedéet sa kilifa diine yi dootuñu wax xam nga lu tax nit am na ñoo xam ne dañuy dañuy dem fajal seen bopp ba ñàkk pexe bëgg a force kilifa sexal ko pour mu waxal hmm. du noonu du noonu. maanaam dañ leen beddi ba coow li jeex ñu bëgg leen. ñu bëgg ci dugal du dëgg. Hmm. parce que tey ma wax la benn affaire ñoom dafa am luñ côté bu ñu war a xeex am ñun côté bu ñu war a xeex. Hmm. tey jii booy seet màggal yeeg gàmmu yi sax ñun talatuñ ko ndax fitna. génne Macky Sall du ñëpp moom lañ bëgg. mais boo ko génnee kan nga fay teg. dañoo war a lijjanti kiñ fay teg pour yii bañ ñu dalati mhm. pour ñun si problème bi lañu war a régler suñu problème ba bu ëllëgee yii dootul am xam nga lu tax ñu tànn mais tey yéen da ngeen a jóge ci loi dem ci suivre mhm. suivre du la tànnal ku baax mhm. benn jimboori bu bu wutee parrainage quarante mille am ko mais jimboori mënul yor réew nga ne mais jàll na boo ma joxee réew mi nan laay defar ak ay bailleurs de fonds yoo xam ne dañuy dañuy utiliser seen alal ba jot réew mi fayeeku seen xaalis Afrique parewuñ Afrique parewuñu parewuñu mmh, defe naa ni politique bi moom buñ ci duggee jamono bi dafa yëngu lool defe naa ne dañ ciy taxaw bu baax a baax donc bëñ dañuy tëj rek ak